salaamaaleykum sama gars yi 130e màggalu Touba la ñu célébré Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan mbokku talube te di leen yëgal ne safar gi le 18 la ko borom woote léegi nag nanu wàcc tëggoo sabar yeeg yàqum xaalis beek daxasoo euh, góor ñeeg jigéen ni ñuy def te koy tuddee ay safar ci période booba. Babulaahi ma ca pencum boppam ma maam Thierno Ibra Fati Chikori nee na. képp kuy wuyo turam baa nga di ab talubeem na nga wattandiku mbooleem xeetu sinebar moo xam yàmbaa moo xam gees la moo xam dorog la moo xam sàngara la wala volet waaw am na coow su ñàkk fayda nag su ca jugaale naan ay dañuy fayal kii King Fahd Palace duñ fayal kii King Fahd Palace indi li wérte wóor daal mooy Touba sant nañ bu baax état bu senegal gërëm leen état bu senegal Alioune Tine jàpp ne Ousmane Sonko kon neexul ba neexul mais moom mooy doxal réew mi pétition am ñu bëgg a xam mbiri ONAS yi fi amoon coow loola marché de gré à gré docteur Cheikh Dieng Cheikh Tidiane Dieye kan moo wax dëgg état bi na ci pat rek loolu nan la def ba mu leer Bougane Gueye Dany nee na dinaa tontu Ousmane Sonko ba xam ne dinaa ko tontu ndax man du ma opposition saak amee wallaay ndeysaan Assis Dabala mi ñu rey Nabou Leye teg nañ ko loxo Modou loo ku ñuy wax loo Lo Mamadou Diawo teg nañ ko loxo waaye dina am ñetti nit ñoo xam ne ci TikTok bi lañ ne di jaay expert danañ leen yóbbu ca yoon ndax ay foto jàmbur ay jaxase bëgg bës ak vue tax ñu bëri dinañ ci dugg kaso de ku yóbbu def ci attention de juróom-benn nit daal jàppagum nañ leen agum euh, fleuve senegal moom moo Sambara bay ngarañ yenn kër ca Kidira Matam ak Bakel menacé nañ leen février bii di ñëw Sénégal dina jëm ci li ñuy wax gaz to power maanaam dinañ fab suñu gaz su ñu ko mu nekk courant mbir mi gën a yomb gën a saawaan gën a baawaan